waaw dañu ñëwoon tey Thiès euh, bureau national gannaaw ba ñu jegee waaye fa weer yële passé doon installé seen bureau bi ak bureau national ñu ñëw fii cees tey pour def réunion bu am bu yaatu boo xamante ni bi dañ ci boole région yëpp fi mu ne nii région yëpp ñu ngi fii euh, quatorze régions yi ñu ngi fi ak département yi nekk Sénégal ñu def ko fii ci cees pour lan dundalaat arcot yi nga xamante ni euh, am ay jafe-jafe moo taxoon Euh, mënuñu woon dem ak euh, ñi nga xamante ni dañu fayoon complètement hmm, ñu dundalaat leen ak ñi nga xam ne dañu bëgg a créer cellule ARCOS ah si seen i si seen i gox loolu moo tax affaire bi jóg pare nag ñu ne buñ ñu ci loolu dañu def formation sunu artistes yi def na formation ndaxte euh, formation bi dafa am solo dafa am lu ñu war a bind théâtre dafa am yoon. dafa am noo xamante nii euh, war nañu artiste bu nekk war naa mun a xam lan mooy rideau de scène lan mooy pendrillon ah euh, lan mooy avant-scène lan mooy orchestre ci biir salle danga ma artiste bu nekk di yëngu ci wàllu théâtre war nga xam yooyu le kooku c'est les aspects techniques qu'on appelle la régie en spectacle yooyu yëpp dafa nekk yoo xamante ni waxtaan nañ ci euh, fas yéene nag incha allah ci ay ay bés yu néew dugg ci biir Sénégal su ko defee formateur yi nga xamante ni jàngalekatu théâtre yi nga xamante ni jot leen bind seen tur ñu mun leen la bàyyi nag ñu dugg ci biir gox-goxaat yi dem ci arcotes yi woo comédiens yi teg leen ci yoonu théâtre parce que am na loo war a wax ak loo warul wax am na noo war a doxee ak noo warul doxee danga ma am na foo war a teg sa tànk ak foo war a teg sa tànk ci théâtre parce que kii ñëw fay sax xaalisam bu bëgg laa seetaan dafa bëggu seetaan loo xamante ni neex na neex na joxalam xolam te neex naa dégg waaw donc loolu il faut ñu jublu ci waxtaan ak artistes yi nii ak nii ak nii dañ koy defee su boobaa nag ñi ma ko waxee léegi ci ñun am nañu ay spécialiste ñoo xam ne macha allah seen xam-xam màcc na ci wàllu formation ak ñoo xamante ni sax gaa bokkuñ ci ñun nii mais dañuy def teyaat ñu jël seen expertise seen xam-xam dégg ma. boole kook ñii nekk ci biir ARCOT pour ñu dem jàngal xale yi wan xale yi naka la loolu moo gën a tax ñu ñu jóg ngi def loolu beneen bi mooy dañu fas yéene dekkilaat festival du rire bu Kaolack parce que festival bu rire bu Kaolack euh, mën naa wax ni ñeenti at wala juróomi ngi ni yoo xamante ni organiser wuñu ko pas parce que euh, dañu ko mais dañu boon a toog xool parce que boo liggéeyee lu am 12 di festival fukki ak ñaar du da nga war a toog nag. réfléchir xool nag ngay jógewaate pour organiser waat waaw parce que am na yoo xamante ni yii baax na am na yoo xam ne ay rëq-rëq la c'est tout à normal àdduna dëxe noonu donc loolu moo tax ñu ne nañu toog fii Thiès waxtaan ak ñëpp ku nekk joxe na xalaatam seet naka la ñu doxawaati mbir yi di ci gërëm nag ki nga xamante ne mooy secrétaire général Libou Ndoye tout ce qui administration ci wàllu théâtre bi moom la Ndeye Sine moo yor wàllu communication bi. moo tax mu ñëw taxaw fii di veillé nag ci li nga xamante ni moom la ñu wax fii ak li nga xamante ni moom la xale yi fas yéene def ci théâtre waaw bokk na ci li nga xamante ni vraiment moo tax ñu jóg dundalaat dundalaat cellules yi euh, yi nga xamante ni dañu amoon ay jafe-jafe ñu ñu ci leen euh, wax état bi itam ñu ngi rafetlu xëj na jàppale bi nga xam ne ministère de la culture jàppale nañu ko waaye loolu justement pour. fonctionnement bureau bi la rek waaw mais lii jëm ci formation bi xam nga dafa laaj ay moyens laaj ñu itam xaalis parce que ñi nga jël pour ñu def formation il faut nga jox ne seen ah seen i per diem ak seen i restauration yooyu yëpp mbir la donc ñoo di interpeller ak ministère de la culture ministère de la jeunesse ak euh, yenn euh, mission de coopération yi culturelle yi nekk fii pour ñu jàpp ci liggéey boobu la formation bi est-ce que xalaat ngeen ci carrière artiste bi ndax gis nañu ñu ci bëri seen loxo jotewul seen ginnaaw ndax métier bi ñuy def dundalu xam nga euh, artiste comédien bi dafa xaw a weex donc rek waaye loolu corps du boo dem fekk ko fa c'est-à-dire que boo demee bay euh, jëm ak âge retraite ah, boo amatul doole liggéey day day day feeñ ci say moyens say say am-am dégg nga ma c'est que artiste bi dafa siiw rek nit ñi di ko teg bët parce que moom la ñuy gis. Hmm? mais ñun xaaruñu sax ñun ku ñu ne am leen lii ngeen jàppale seen mbokk artistes yi ñun suñu bopp ñoo ko jëkkee parce que lii mos naa ko sa président de la République man na ko xaaruñu ñu ne ñu am leen ngeen jàppale seen artistes yi ñun suñu bopp ñu jël suñuy moyens suñuy cotisante suñu biir ci sutura nag dem seet koo xamante ni kii xëñ na euh, jàppandiwul na mu demoon demba demoonul tey ñu jël la ñu am jox ko bu ñu jóge ci moom dem ci kanam jox ko jóge ci kooku dem ci kanam jox ko noonu daal la ñu fonctionné ça fait mois ñu koy def ba léegi juróom-ñaari weer ngi ni ñu koy def ba weer wu ne waaw. ci ci ci domaine théâtre bi bu ñu xoolee li ci ginnaaw jamono daara ko te théâtre bi contrôlé woon nañu wax jeeg yooyu mais boo xoolee léegi ak privatisation bi am ci jumtukaay yi télévision yi yooyu ak ligne nga xam ne mën gis xam euh, waaw xam nga loolu moo war a sax ñu dugg ci yenn vole formation bi parce que formation bi dafa am ay module module yëpp da ci am ba ci naka la ñu war a mën a bindee pièce de théâtre lan nga ci war a mën a wax te doo saaga doo heurté ki nga xamante ni moo lay déglu wala moo moo lay seetaan loolu suñu cër la ci la ñuy dox waaw parce que théâtre wax dëgg yàlla euh, bu demee ba dootul yeete lu la xaste gi saaga jaratu ko lu dëgg ñun nag loolu mooy li nga xamante dañ ciy dox loolu moo war a teewaayu euh, chargé de communication ak secrétaire général ah lépp loo xamante ni lii ci ñun li ñuy yëg ñun lu ñu yëgul ñun yëguñu ko parce que c'est am na ñoo xam ne fu neex lu ñu génnee du ñu yëg dégg nga nit ñi rek ñoo ñu naan ah ndax seetaan ngeen diw nangam ak nangam xam nga bon on est devant les faits on chaque fois on leur dit na ngeen xoolaat seen scénario na ngeen xoolaat li ngeen di bind il faut pas jouer aussi n'importe comment il faut pas servir au public sénégalais bu leen jox public bi lu leen neex parce que saaga baaxul mais bu dul théâtre sax saaga baaxul mën nga nag boo dee artiste comédien bu bu bu xarañ mën nga jàllale say message say bataaxal say waxin hmm? xaw ci fexe ba nit ñi reetaan même dañ koy def euh, président de la république am na artistes yoo xamante ni dañuy def seen humour tudd ci góor gi président de la république wala tudd ci yenn ministre wala yenn kili kilifa tey du ñu saaga ni dañuy reet dañuy reetaan rek loolu nag mooy Sénégal loolu nag la ñu bëgg a ñaax nit ñi artist yi ñu dugg ci ñu def noonu parce que loolu dañ koy soxla mais bu ñu deful formation bi nii da nga ma mooy indi yenn yenn yenn jafe-jafe yenn kii yenn jafe-jafe yi mm-hmm. waaw moo tax ñu bëgg insister bu baax a baax a baax ci formation boobu de